ra 200. waaw soo calculé loolu mooy maam jaara mhm. moo tax mu ne moo tax fee ñu wax ne maanaam suuratul ahwaali lan ko leen ci laaya muy 285. Hmm? nattu moom la nattu suñ Tuubaa ci juróom-ñaari at ñu maam ci yoonu géej gi. loolu ku gëmul yàlla dëgg mënoo koo mënoo koo dékku sëñ Tuubaa moom ay mbiram maanaam dañ ci mos rek mais mënuñoo wax lépp ndax vraiment li nga expliqué nii lu yéeme la euh, mais. Euh, ci comme màggal gi nii niñ ko wootee nii dañoo gis ne sëñ Fallou Mbacké moom moo woote comme niñ koy defee nii mais sëñ Fallou ci ban méthode la ko wootee ak nan lañ war a màggalee maanaam bu ñëwee dañoo war a jàng ay xasida wala dañoo war a jàng ay alquran def ñi nga xam ne ni mënuñoo jàng ñi def ay laa ñi def ay bisimilahi rahmaani rahim ñi yéene ko sëñ Touba parce que sëñ Touba moom ñaanal ko ñaanal sa bopp la waaw ndax nitu yàlla moom loo ko ñaanal rek dafa mel ni si yow lay siwaat léegi nag foofu noonu lañ bëgg nga pajal ñi fi li sabab màggal gis sañ Fallou woote ko nit ñëpp dajee fi te vraiment gis nañ ni année bu jot day gën di yokk da ngay gis ko di yëkkati benn million def année bii ñëw mu am 3 millions defaat ko ci. waaw secret boobu nag lañ bëgg nga laalal ñi foofu noonu ak sëñ Fallou. Euh, ban méthode la am ba tax mu woote màggal gi euh, pour nit ñi ñëpp ñëw di ko defee fii Touba. secret baa ngi ci Matlabul Fawzayni. sëñ Touba mu ngi sëñ Touba. est-ce que en 1888. waaw. sëñ Touba Mbacke Kajoor la bàyyee ko waaw fa la maam Serigne Fall jébulu mhm. mu ñëw Mbacke Bawol gi nga xam ne maam Mahram moo ko sëñ Joon mhm. di maamam. mu jóge Mbàkke Bawol ne fa ci ay jafe-jafe. maam Seex Rafaa woon ko suufu Daaru Salaam mu ñëw Daaru Salaam. waaw sëñ Tuubaa taaluwut sëñ Moodu Mustafaa. Hmm? déedéet. ah man man loolu la man buñ ne taaw sëñ euh, Tuubaa ñun. mooy taawam bi dund. bi dund waaw xam ko. waaye Mbàkke Bawol am nañu am na ay leer yu fa feeñ delluwaat. bon del delloo nga ñu xam-xam ci loolu. noonu ndax booba suufus Mbàkke Bawol. waaw maanaam dafa bari yu fa xew. Mm-hmm. yoo xam ni. Mm-hmm. bi maam Maharam bàyyee ko euh, ci dëkkam boobu. Mm-hmm. ñëw ñëw ci sëñ Malamine Sarr. ci ci ci Amari Ngoone Sabel. Amari Ngoone Sabel waaw. di di di di di wax Amari Ngoone Sabel ngir mu bàyyi ñi mu jàppoon ci xeex bi mu xeexoon ak sëñ gudd nga laaj. Hmm? waaw léegi suñu liggéeyaan bu nooy indi waaw mais nga tënkal ñu ko rek nga tënkal ñu ko rek bi bi bi yàlla dogalee ñu ñu ñu ñu tase ah. sëñ Amari Ngoone Saber rey ci ñoom lu baree baree bari <laughs> fekk nañ sëñ Maam Maharam Maam ne du dem ci xeex boobu <laughs> ndax boobu xeexub jaay la waaye du jihaad <laughs> Maam Maharam gantu bi Amari Ngoone Saber reyee ci sëriñ Sénégal gi lu baree baree bari ba ci sëriñu Saalum si rey ci ñoom lu bari bi mu rëyee ci ñoom lu bari maam Mahram toog bay jamono. dal ne day dem ci fara ci euh, Amari Ngoone Sabil ngir mu bàyyi doomi sëriñ yi jàpp ñu delluwaat.